jërëjëf mbokki jullit yi ñoo ngi leen ziar di la ndokkeel ak fay mën a ne xanaa bu ngeen gisee suñu taxawaay gis mbooloo mi jarul ngeen di ñu laaj fu nu ne ñoo ngi ci ëtt bu tedd waaye ci suuf si tedd seet si fi góor gu tedd di a Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ibnu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum gis nga yor-yoru gàmmu nii la koy defee ànd ak ndaw ñi gis ngeen xale yaa ngi nii tey toog ak ci yar bi mu def ci ñoom ñu ngi nii toog ak jikko yu rafet yi mu def ci ñoom. ba fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi wala fépp fu ñu mën a dem ci àdduna bi boo gisee ndawul Cheikh Moustapha Sy di nga ko xam ne ci doxin ci waxin ak ci ay teggin Cheikh Moustapha war a génn ci kanam tuuti saa ak mbooloo mi nuyu leen wan leen cofeel gi mu yàgg am ci ñoom gis ngeen mag ndaw jigéen góor ni ñu feesee ci biir kër gi tey noonu lañu feesee ci biti dama wax ni tarixa Cheikhouna Tidiane Cheikh Moustapha yoon na ko ba kenn mun a xët tarixa bi ndax formé na ñoo xamante ne que ils soron les grands défenseurs de la tarixa tijaniya ñu ngi ànd ak yéen xool génnam ci mbooloo mi naka lay demee ak naka mbooloo mi dundee dama wax ni suba ñu ànd ak yéen dem fekk ko fële nga xam ne mooy champ de course dund ak moom li nga xam ne moom mooy cérémonie officielle bi ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ci yor-yoru gàmmu. ànd ak ak yéen dem cérémonie officielle bi nga xamante ni que Serigne Babacar Sy Mansour moom moo koy présider ànd ak Serigne Pape Malick Sy ak Serigne Maodo Sy ibn Moulay Abdoul Aziz Dabakh ñu ànd ak yéen dund lépp ambiance màggal Dakaractu événement bu ne bu mu mën a doon événement religieux sportif culturel duñ ci bàyyi dara ni ñu teewee ak yéen tey fi ci Tivaouane noonu la ñu àndee woon ak yéen barki démb Touba te noonu la ñuy ànd ak yéen semaine bii di ñëw fi nga xam ne moom mooy Ndiassane ànd nañ ko ak yéen dem ci bu xaabu tedd bee di ëttu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa noonu la ñuy ànd ak yéen dem Popenguine waaye tey dañoo bëgg tooyal xol yi ndax borom maqaama bi borom jàngale bu rafet bi borom pédagogie bi borom langage bu rafet bu teey bi di Cheikh Moustapha léegi mu gën a tàllal loxo mi tedd yooyu jël ñeewan ñeewante xool ko mbooloo mi saafonte ak ñoom duggaat ci bir kërëm ku ci nekk dellu seen kër kon ñun ak yéen Dakaractu ak tuy ak seen mbokk bur Gueweul ñu ànd dund événement bi nga xamantene ne que fii lañ koy dundé fi ci diwanu diwaanu Moustarchidina wal Moustarchidaati كل الخلق يلاه نور المبين أتى نور المبين لي عبادي جميعا tey bu ñu doon laaj tey loolu sëriñ Moustapha Sy defal ah sëriñ laaj nga lu garaw kooku li mu ñu defal bari na bi si jëkk rek mooy jële gi mu jële si lëndëm dugal na ci leer ci anam bu ne nag si lëndëm bu nu mënoon a nekk suñu xam suñ bopp natt ko ni wóor na ni bu tëgul tànkam su jàppaloo suñ loxo nu réer ndax li ñëpp doon jàng jàngoon nan ko te taxul woon ñu gindee ko waaye bi yàlla dogalee ñu dugg si li nga xam ne mooy aw yoonam mi nga xam mooy yoonu njub sax ci la ne teggi suñu tànk ca fan ko tegoon. salatan salliman abadan hatta kama waroon laaj lu la sëñ ah sëñ Moustapha Sy de moom jàngal na ma te koo gis parce que yar na ma bu may nekk bu may añ nu may def bu ma nekkee si biir nit nu may def bu ma nekkee si mbedd mi nu may def yooyu yëpp jàngal na ma ci waaw ah, te mosuma koo gis nag waaw. mosu leen gisee. Ah, moom loolu tax tey ma ñëw nii waaw. boo doon définir boo ma doon wax personnage sëñ Moustapha. sëñ Moustapha personnage am ah mi ngi mel ne daal nga jël jëmmi kii nii jëmmi maam parce que ñoo bokk ñoo boo leen pareen saay sax dañ leen di ndax waxin bi ak solin beeg yooyu yëpp da ngay gis sax pareen saay mu solu nga naan tey daa solin papam waaw waaw modèle wax ndaw ñi nga xamante ne que amuñu chance su formé wu ci daara Moustarchidina wal Moustarchida. ah maa leen wax ñu ñu lii rek ñu jàng si moom rek buñ ci jàngee danañ danañ mel nu baax de mel nu baax. adulu يا سميع واسع يا بصير gis nga sëriñ baa ngi noonu di dugg si sëriñ Moustapha Sy borom daayira wal mushashidina wal mushashidaati gis ngeen mbooloo maa ngi noonu di tàccu mu ngi noonu gis nga ñi mu àndal ñoo ngi noonu gis ngeen mu ngi noonu ànd ak njabootu Serigne Cheikh gi ñoom ñu fonk ko loolu mu ngi noonu day dem yéeg saa ak mbooloo mi Bamba gis nga Cheikh Moustapha Sy mu ngi noonu borom daayira Moustapha euh, Moussa Sy wala Moussa Sy daati def euh, jàllaa bi bu maron ndeysaan di saa ak talibe dégg nga xale yaa ngi naan jaaraama jaaraama sëriñ Moustapha si ku soxorul ne la jaaraama wax nañu dëgg ci li mu leen defal ci yar bi mu leen yar tàggatal leen boppam ak ci tarbiya bi mu leen defal tey ba ñu mën a mel ni moom moom day ku xam digganteem ak taalibe yi xam ni diggante mbokk ak mbokk la ku xam digganteem ak taalibe yi xam ni diggante doom la ak bàyyi ku xool digganteem ak taalibe yi xam ni diggante mag ak rakk la mu ngi noonu Cheikh Moustapha Sy di déglu xale yi ak noppam waaye gis ngeen bët yërmande bi leen xool ah, avec plein d'émotion boo xoolee xam ni xool bi sedd na émotion la àndal cofeel gu xale yi wan cofeel gu ko raw gu ko raw la leen ni la leen ni wan noonu ndeysaan mu ngi leen naan jërëjëf tàllal loxo yi pour ñu ñaan nañ tàllal loxo yi mu ñaan ndeysaan mu ngi noonu di ñaan amin yaa Seydi Cheikh Moustapha Sy ibnu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ابن السيد البوبكر سي ابن الشيخ سيد الحاج مالك موغي نونو دي ان فيرف ديفونسير دي لا تاريخ التيجانيه موغي نونو بوكو تي سيت يي مودا امون ياكار موغي نونو بوكو تي سيت يي جابال مودا تاريخ بي موغي نونو بوكو تي سيت يي دوليل مودا تاريخ بي كورنيل امين الشيخ مصطفى ابن الشيخ احمد التيجانيه ابن السيد البوبكر سي ابن الشيخ سيد الحاج مالك خاشع وجنود جذع عاسفون يا الله يا الله رب تبارك آمين أو رب تعالى آمين أو رب تعالى عن ربي من رب تبارك آمين حماد يا دار يا عمر فرتين أبلي مسامحة يا الله يا الله رب تبارك آمين أو رب تحدى أو رب الله